gën a sant sunu borom bu baax noo ngi sant sunu borom bu baax moom mi sëriñ bi ci boole gi mu nu sëriñ bi sëriñ bi di sant sëriñ bi moom mi nga xam ne mooy sunu léppi tey ëllëg xam ne mooy sunu léppi tey ak ëllëg lu mata wax wax na ko ñu xam ne itam lu mat a wax wax na ko moom sëriñ bi lu mat a def def na ko lu mat a def def na ko lu mat a digle digle na ko lu mat a digle digle na ko bàyyiwul dara bàyyiwul dara ba tax na ba tax na waxuma sax jaamu sunu boroom mi nga xam ne moom rek moom rek la bëgg ci noonu waxuma sax jaamu sunu boroom jaamu sunu boroom mi nga xam ne loolu rek la bëgg ci noonu waxuma la liggéeyal ko liggéey bu sel bi nga xam ne mooy sunu njariñal tey ëllëg waxuma ko liggéey bu sell boo xam ne mooy sunu njariñul tey ak ëllëg waaye dañ ko ameel cant gu réeré waaye dañ koo ameel cant gu réeré mu ne su ko wax ci làmmiñ mënee su koo wax ci làmmiñ ci jëf rek lañ ko mën a euh, lañ ko mën a euh, wone suñu kem kàttan ci jëf rekk lan ko mën a wone ci sem suñ kem kàttan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin liggéeyam bu rëy bii sant nañ ci bu baax baax nañ ci bu baax a baax ndax lépp mooma ndax lépp mooma dafa fekk na nag dafa fekk na nag doomu aadama dafa doyadi doomu aadama dafa doyadi ay mbooloo mi dafa xaaj. ba tax mu mel ni mbooloo mi dafa xaaj. am ñu farlu lool. am ko bëggee. am ñu farlu lool te ko bëggee. ñu sàggan lool te nam ko bëggee. am ñu sàggan lool te ko bëggee. am ñu xam lool. Hmm. ak jubloom. am ñu xam lool ak jubloom. am ñoo xam ne am nañ ca kumpa lool. am ñoo ne am nañ ca kumpa lool. loolu lépp nag. Mhm. loolu lépp nag. farloog sàggan rek fi nekk. farlook sàggan rek moo fi ne. moom lam bëgg lépp am na ko tey ak ëllëg. moom lam bëgg lépp am na ko tey ak ëllëg. yërëm jaam ñi rek moo tax mu bëgg ñu nekk ci lañ war a nekk. yërëm jaam ñi rekk moo tax mu bëgg ñu nekk ca lan war a nekk lan war a nekk nag du dara lu dul jaamu yàlla lan war a nekk nag du dara lu dul jaamu yàlla ak liggéeyal ko liggéeyal ci lépp lu baax ak liggéeyal ko it ci lépp lu baax adduna sax naka jekk lii nu ci metti tiital nu ci mos fee jóg àdduna sax naka jëkk lii nu tiit lii nu ci metti tiital nu sax musu cee jóg muy càggante gu ëpp gi musu fee jóg waaye nag rawatina suñ jamono ji waaye rawatina nag suñ jamono jii dafa mel ne li ëpp ci mbooloo dafa mel ni li ëpp ci mbooloo mi àdduna fàbbi na leen àdduna fàbbi na leen ba talatuñu sunu boroom. ba talatuñu boroom. talatuñu it alaaxira. talatuñu it alaaxira. loolu yaatu na lool. nee na loolu yaatu na lool. waaye liñ war a gën a sant sëriñ bi. waaye liñ war a gën a sant sëriñ bi. dëkkam bu sell bi. dëkkam bu sell bii am na ci ñoo xam ne suñu boom na leen tawféex na ci ñoo xam ne suñ boroom may na leen tawféex ju rëy rawatina ñi nga xam ne ñoo ko nekkal ci diine ji rawatina ñi nga xam ne ñoo ko nekkal ci diine ji ak ñi takkook ñoom ak ñi takkook ñoom duñ teqalikook ñoom wenn waxtu lépp ngir xam seen warteef. lépp ngir xam seen warteef. ak xam bëggug sëriñ bi. ak xam bëggug sëriñ bi. ñu nekk ci diggante boobu. ñu ne ci diggante boobu. di jullit yu mat. di jullit yu mat. di taalibe yu mat. loolu fa tabaarakallaahu. am na fi am na fi. Eh, waaye nag. waaye nag. càggante gi moom. càggante gi moom. yaatu na lool. yaatu na lool. te doyee dig doomu aadama dëgg la. te doyee dig doomu aadama dëgg la. waaye càggante gi nag gi nag moo ëpp. sëriñ bi moom lu nit xamadi xamadi sëriñ bi lu nit xamadi xamadi. xam ne eh, biñ ko gisee bañ ko ne biñ ko gisee biñ ko gisee ba noppi koo gis. tëlu fi dara lu dul boromam. tëlu lu dul boromam. lu dul ndigal lim am ci yonent bi. lu dul ndigal lim am ci yonent bi. mu nekk seen diggante. mu ne seen diggante. bawul dara lu baax. baw bawul dara bawul dara lu baax. lépp. lépp. def na ko. def na ko. luñ mën a teg bët. luñ mën a teg bët. teg bët. ak luñ mënta teg bët. lu baax. waaye luy tegtale lu baax. sëriñ bi def na ko. sëriñ bi def na ko. yërëm gi mu yërëm jàmm yi itam. yërëm gi mu yërëm jaam ñi itam tax na teg na wane na yoon wa nga xam ne moom la bëgg nu tegu ca tax na wane na yoon wi nga xam ne moom la bëgg nu tegu ca muy rek fonk suñ diine mooy fonk suñ diine fonk suñu taalibe rek fonk suñu taalibe itam fonk suñu itam ndax diine ji moom fi la ko fekk. ndax diine ji moom fi la ko fekk. waaye bi mu ñëwee itam. waaye bi mu ñëwee itam. la ca war lépp def na ko. la ca war taalibe gi moom. taalibe gi moom. naka jekk suubu yoon suubu yoon yàlla mi ngi fi woon. naka jekk suubu yoon yàlla mi ngi fi woon. waaye nag. waaye nag moo taxaw fii moo taxaw fii fa ko gisee rek lañ tàmbalee gis fa ñu gise gisee rek lañu tàmbalee gis taxawaayam bi mu nam ma taxawal boroomam taxawaay bi mu nam ma taxawal boroomam ca loolu la nekk ca loolee la nekk jaar fa mu war a jaar fépp. jaar fa mu war a jaar fépp. def la mu war a def lépp. def la mu war a def lépp. wàccoo naag waa waa suuf. wàccoo naag waa suuf. wàccoo naag waa kaw. wàccoo naag waa kaw. lépp it. lépp it ci boromam rek kon nanu góorgóorlu bu baax. kon nanu góorgóorlu bu baax. delloo delloo sunuy xel. delloo sunuy xel. gën yëngal sunuy xol gën a yëngal sunuy xol jëme ko ci limu nu fi bàyyil jëme ko ci limu nu fi bàyyil diine ji rek lanu fi bàyyil diine ji rekk lanu fi bàyyil ak liggéeyu boppam bu rëy bi ak liggéeyu boppam bu rëy bi nga xam ne ak taalibe ci la jóge bi nga xam ne ak taalibe ci la jóge kon li nu war mooy góorgóorlu bu baax. kon li nu war mooy góorgóorlu bu baax. wattandiku càggante. wattandiku càggante. adduna fàbbi na fàbbi nanu. adduna fàbbi nanu. ba tëlatun lu dul moom. ba tëlatun lu dul moom. te. lanu jig day te lanu yëg day lanu jig lanu jig day mooy jaamu yàlla mooy jaamu yàlla jaamu yàlla rekk nu jig jaamu yàlla rekk nu jig waaye sàggane sa diine waaye sàggane sa diine du la yóbbu ci jaamu yàlla du la yóbbu ci jaamu yàlla te du la bàyyeeg neen itam. te du la itam. ndax ginnaaw tëlatunu sunu boroom tëlatunu alaaxira gën jëm. ginnaaw talatunu sunu boroom talatunu alaaxira gënu jëm. ngir àdduna ji rek. ngir àdduna ji rek. te day. te day xam ki xamal ñi xam te day ki xamal ñi xam ñi xam-xam lam leen xamal ñi xam-xam lam leen xamal dégg nañ wax ba dégg nañ wax ba adduna bu fekkoonte ne su boroom da ko yemale woon ak laafu yoo su adduna bu fekkoon ne sun boroom da koo yemaleeg laafu yoo. kon ab yéefar du ci am kaasu ndox bu mu naan. kon ab yéefar du ci am kaasu ndox bu naan. kon adduna amu jërul dara. kon adduna jërul dara. te nekk ci li nga war a nekk. te nekk ci li nga war a nekk. du yàq dara ci li fay yem fañ nu yemloo. du yàq dara ci ñu yem ci fañ nu yemloo. ñoo ngi lekk ñoo ngi naan. Mhm. noo ngi lekk noo ngi naan. noo ngi sol mbubu. noo ngi nekk ci kër. noo ngi nekk ci ay kër. ay xéewal yu ak ay ak yu bari. waaye loolu lépp. waaye loolu lépp. ndimbal rek la war a doon. ndimbal rek la war a doon. ñu jublu su su su suñuy xel. ñu jublu suñuy xel. ak suñuy xol. ak suñuy xol. mu nekk mu nekk ci nun yitte. mu nekk ci nun yitte. góorgóorlu ba bañ a lu dul yàlla. góorgóorlu ba bañ a yittewoo lu dul yàlla. lu nu lu nu doyadi doyadi. lu nu doyadi doyadi. mën na noo yittewoo sunu borom. mën na noo yittewoo sunu borom. jiital ko sunu yitte. jiital ko ci sunu yitte. lañ nu ayalul. lañ nu ayalul. lañ nu ayalul. sañ nañ koo jëfandikoo. sañ nañ koo jëfandikoo. gan gu rëy ngi nii. nee na gan gu rëy a ngi nii. gu bari njariñ gu bari ay njëriñ. gu sëriñ bi fonk. gu sëriñ bi fonk. kon nanu góorgóorlu. kon nanu góorgóorlu. fa tabaarakallaahu. fa ñooñ sëriñ bi. ñooñ sëriñ bi. wax ji taxu leen a jóg. wax ji taxu leen a jóg. ndax ñoom ñu ngi ci lekk nekk ci li ñu nekk. ndax ñoom ñu ngi ci li ñu nekk. taluñu àdduna. àdduna. ngir ngir xalaat seen diggante seen boroom. ngir xalaat seen diggante seen boroom. ak jaamu ko seen kem kàttan. ak jaamu ko seen kem kàttan. kon kenn ku ne. kon kenn ku ne xam nga sa bopp xam nga sa bopp bu càggante nekkee ci yow bu càggante nekkee ci yow xam nga ko xam nga ko bu farlu nekkee ci yow bu farlu nekkee ci yow xam nga ko xam nga ko te ñi farlu te ñi farlu lu ñu def xeeb nañ ko lu ñu def xeeb nañ ko seen diggante ak seen borom seen borom ñi sàggan nag ñi sàggan nag càggante càggante gi day gën a day gën a yokk rek càggante gi day gën a yokk rek boo xamee ne taloo lu dul sa bopp boo xamee ne taloo lu dul sa bopp taloo lu dul àdduna lu dul àdduna ah loolu bu dee mbooloo loolu de bu dee mbooloo ñu ànd ci càggante ñu ànd ci càggante lu leen dal ñoo ko teg seen bopp. lu leen dal ñoo ko teg seen bopp. bu dee kenn par kenn. bu dee kenn par kenn. kenn ku ne. kenn ku ne. la naqari ci boppam. la ko naqari ci boppam. càggante génn ca. càggante càggante génn ca. ku jublu sëriñ bi. ku jublu sëriñ bi. càggante dana day jeex ci yow jàggante day jeex ci yow am sëriñ bi dëgg la doy na tawféex am sëriñ bi dëgg la doy na tawféex waaye nekkal ko ci li bëgg nag waaye nekkal ko ci lim bëgg nag mooy tawféex ju réy ja mooy tawféex ju réy ja alhamdulilah eh, nañ góorgóorlu bu baax nañ góorgóorlu bu baax suñ gan gu tedd gi suñ gan gu tedd gi nu nu nu gaaw nu góorgóorlu gaawtu ci ñu gaatu ci ba delloo suñuy xel ba delloo sunuy xel yëngal sunuy xol yëngal suñuy xol suñu yitte jëpp suñu yitte jëpp ñu gàttandoo ko suñ kem kàttan ñu gàttandoo ko ko suñu kem kàttan gunu góor góorloo bu góor góorloo lu nu gën a góorgóorlu. lu gën a góorgóorlu. lépp di gën a yomb. lépp di gën a yomb. lépp di gën a barkeel. lépp di gën a barkeel. waaye lu nu gën a sàggan. waaye lu nu gën a sàggan. jafe-jafe yi ñuy wax. jafe-jafe yi ñuy wax. muy baat bu xew ci jamono ji. muy baat bu xew ci jamono ji. dara andiwu ko. dara andiwu ko. loolu ñàkk nekk ci li nga war a nekk rek. ñàkk nekk ci li nga war a nekk rek. njàmbat li. njàmbat li. matu ko. matu ko. lu nu dal. lu nu dal. noo ko teg suñ bopp. moo ko teg suñu bopp. téere yi bañ. te maam Adama ba léegi mi ngi wàcc na ba ci ba ci alxuraan. téere yi maam Adama ba ba ba léegi ci wàcc na ba ci alxuraan. lépp lépp luy taxa a mucc. lépp luy tax a mucc. mi ngi ci mi ngi ci. lépp luy tax a raw. lépp luy tax a raw. mi ngi ci mi ci. lépp luy tax a texe. lépp luy taxa texe. mi ngi ci mi ngi ci. lépp luy yóbbu àjjana nit. lépp luy yóbbu àjjana nit. mi ngi ci mi ngi ci. kon nan góorgóorlu kon nan góorgóorlu wattandiku ak càggante wattandiku ak càggante kenn ku ne ci nun kenn ku ne ci nun na def seen kem kàttanam na def kem kàttanam ngëm gi ngëm gi ak yitte ji ak yitte ji ak jëf ji ak jëf ji bu ci kenn xeeb dara bu ci kenn xeeb dara lu nu doye di doye doye di lu nu doye di doye di nan ci nekk suñu kem kàttan nan ci nekk suñu kem kàttan ngàttanu ndimbal mën nañu caa fekk ngàttanu ndimbal mën nañu caa fekk waaye dem ba nga xam ne waaye dem ba nga xam ne talatoo sa borom talatoo sa borom talatoo alaaxira talatoo alaaxira ah, loolu jërul njàmbat nee na lool jërul njàmbat ndax njàmbat la du jëriñ dara ndax njàmbat li du jariñ dara te day dolli jote rek. te day dolli jafe-jafe rek. jafe-jafe yi moom siw na xew na lool fi mu ne. jafe-jafe yi moom xew na lool. fi mu ne jafe-jafe nag dara andi ko lu càggante. jafe-jafe nag dara andiwu ko lu ku ku ku ku danaa di wax ne ku gëm yàlla. dañuy wax ne ku gëm yàlla. gëm alaaxira. gëm alaaxira. il faut nga soppi saw doxin. il faut que nga soppi saw doxin. soppi saw doxin nag. soppi saw doxin nag. nga góor góorlu mooy góorgóorlu. jéem a xam yàlla digle. jéem a xam li yàlla digle. jéem a xam li yàlla tere. jéem a xam li yàlla tere. nga di ca góorgóorlu sa di ca góorgóorlu sa kem kàttan. jéem a xam lu baax. jéem a xam lu baax. jéem a xam lu bon. jéem a xam lu bon. di bëgg lu baax. di bëgg lu baax. di jéem baax waxtu wu nekk. di jéem lu baax waxtu wu ne xam lu bon. xam lu bon. di ko jéem a daw sa sa xelu bakkan. te di ko jéem daw sa xelu bakkan. loolu. jafewul loolu jafewul. xanaa ñàkk xam rek. ñàkk xanaa ñàkk xam rek. waaye ku ku ci mos loolu. waaye ku ci mos loolu. te muy dëgg ci yow. te muy dëgg ci yow. dootoo kuy wax ay jafe-jafe. dootoo kuy wax ay jafe dootoo kuy jàmbatitam dootoo kuy jàmbat ndax dangay xam ne am na lu xew ci yow. ndax dangay xam ne am na lu xew ci yow. loo xam ne. Mhm, loo xam ne. ndollan rek nga cay soxla. ndollan rek nga cay soxla. kon nan góorgóorlu bu baax kon nan góorgóorlu bu baax. ñi nga xam ne ñoom ñi ngi ci loolu. ñi nga xam ne ñoom ñi ngi ci loolu. te wër sëriñ bi nii. te wër sëriñ bi nii. nekk ci li lim leen nekk loo. te nekk ci lim leen nekk loo. ak ñi ñi ci ànd ak ñoom. ak ñi ci ànd ñoom. ñooñu déglu duñ jot a dégg ku leen di soññ. nee na ñooñu duñ jot a dégg ku leen di soññ. waxtu wane ña ngay soññ seen waxtu wane ña ngay soññ seen bopp. waaye nag. waaye nag. jaam ñi moom. jaam ñi moom. yërëmtu la laaj yërëmtalu la laaj dañu war di yërëmtu di yërëmtalu di yërëme di yërëme di yërëme di laabiire di laabiire di soññe di soññe kenn ku nekk ci loolu kenn ku nekk ci loolu jàllale ko ci sa sa mbokkum jullit wala sa mbokkum ak sa mbokkum taalibe jàllale ko ci sa mbokkum jullit wala sa mbokkum taalibe ndax doyadig doomu aadama ndax doyadig doomu aadama bu ànd ak càggante bu ànd ak càggante kenn du xam fu mu jëmee boroom kenn du xam fu mu jëmee boroom ñàkk xam rekk fi ne ñàkk xam rekk fi ne waaye def sa xel ci sa boroom waaye def sa xel ci sa borom mbaa nga bàyyi ko xel mbaa nga bàyyi ko xel te muy dëgg ci yow te muy dëgg ci yow ngay góorgóorlu bu baax ngay góorlu bu baax doo doo doo doo jàmbat doo jàmbat doo jàmbat dara doo jàmbat dara ndax tal ga nga xam ne moom nga tal sa bopp sa ndax tal ga nga xam ne moom nga tal sa borom moo tax moo tax doo doo doo gis lu la jaral jàmbat nee na moo tax doo gis lu la jaral jàmbat ndax doo ko tal ndax doo ko tal yittewoo sa borom rek. yittewoo sa borom rek. ne ci lim digle. ne ci lim digle. daw lim tere. daw lim tere. da muy dëgg. da muy dëgg. ne ci ne ci dàkk. ne sax ca dàkk. day dolli rek. day dolli ko rek. diir bu gàtt. diir bu gàtt. nga yëg am noflaay. nga yëg am noflaay. diir bu baax gàtt nga ci dolli moo ciy dolli ko. waaw diir bu gàtt. loolu moo ciy dollee ko. mooy mooy mooy moom sa bopp. mooy moom sa bopp. ci gàllankoor yi. ci gàllankoor yi. teq téq yi. teq-teq yi. lépp di àdduna. lépp di àdduna rek. waaye ku sóobu yoonu yàlla. waaye ku sóobu yoonu yàlla. te muy dëgg ci yow. te muy dëgg ci yow. boo góorgóorloo tuuti. boo góorgóorloo tuuti. da gis loo xam ne dana dara dootu la jaral dëpp. da nga gis loo xam ne lii dara dootu la jaral dëpp. kon nan góorgóorlu rek. kon nan góorgóorlu rek. Ah, ñi nga xam ne. dañoo jéemul dara ñi nga xam ne dañoo jéemul dara ñooñu ñooñu ñoo ñoom ñoo ñoo ñoom la ñëpp ñoom ñoo jar wax ñooñu ñoo jar wax ndax ki ki kiy jéem te muy dëgg ndax kiy jéem te muy dëgg lu mu gën a dox lu mu gën a dox gën a xam ne mi ngi mi ngi ci yoonu gindiku gën a xam ne mi ngi ci yoonu gindiku lu mu gën a dox lu mu gën a dox gën a tinkiku gën a tënkiku lu mu gën a dox lu mu gën a dox gën a am jàmm gën a am jàmm lu mu gën a dox lu mu gën a dox gën a yëg ak texe gën a texe lu mu gën a dox lu mu gën a dox dana yëg dana yëg dana yëg ak mucc dana yëg ak mucc mucc ci mucc ci mucc ci gàllankoor yi mucc ci gàllankoor yi ba mën a nekk ci la nga war a nekk. ba mën a nekk ci la war a loolu. nee mm-hmm. na ah, loolu. loolu rek la. loolu rek la. kon nañ góorgóorlu nun ñëpp. waaw nee nañ góorgóorlu nun ñëpp. te jéem a faj li nu dal. te jéem a faj li nu dal. te te tëlatuñu dara. tëla tëlatuñu dara. tëluñu sunu borom. tëluñu sunu borom. tëluñu àllaaxira kan jëm. tëluñu àllaaxira kan jëm. loolu kan ñun ñëpp a ko bokk. nee na loolu ñun ñëpp a ko bokk. kana ci yoon wa. kana ci yoon wa. ma ngay xeeb doxinam. ma ngay xeebu doxinam. ka nekkul ci yoon wa nag. ci yoon wa nag. moom la ko jàpp. moom la ko jàpp. da koy gën a jàpp rek. da koy gën a jàpp. gën koo not rek gën koo not rek wax ji mm-hmm. wax ji ñun ñépp ko bokk ñun ñépp ko bokk waaye waaye ñu ci ne xam ku ci ne xam nga sa bopp ku ci ne xam nga sa bopp nan wattandiku rek càggante nan wattandiku rek càggante nañu góorgóorlu suñu kem kàttan nañu góorgóorlu suñu kem kàttan ñàkk xam rek waaye jaamu yàlla jafewul ah, ñàkk a xam rek waaye jaamu yàlla jafewul julli waxtu yu juróom julli waxtu yu juróom di ko jéem di ko jéem xam ne mooy mooy sa wartif xam ne loolu mooy sa wartif mooy sa njariñ mooy sa njariñ nga di ko jéem sa kem kàttan di ko jéem sa kem kàttan diir bu gàtt diir bu gàtt nga tàmm ko nga tàmm ko te gannaaw la nga la nga doon jéem na yàlla tax gannaaw la nga ca doon jéem yàllaa tax boo ko tàmmee boo ko tàmmee dootoo ko mën a ñàkk a def dootoo ko mën a def loolu moom la jéem di indi loolu moom la jéem di lépp lu baax lépp lu baax boo jéemee boo jéemee te muy dëgg ci yow te muy dëgg ci yow loo gën a jéem loo gën a jéem gën a mën gën a man lépp lu bon lépp lu bon boo ko bañee boo ko bañee donte mucc muccaguloo ci it donte muccaguloo ci it gën koo ragal danga ko ragal gën ko wattandiku danga ko wattandiku gën caa gën a jéem mucc ci lépp lu bon gën a jéem mucc ci lépp lu bon dund gi yëpp dund gi yëpp loolu rek loolu rek loolu rek ci nekk loolu rek ci nekk kon nan góorgóorlu bu baax kon nan góorgóorlu bu baax suñu kem kàttan suñu kem kàttan tënk bi moom tànk bi moom mooy góorgóorlu ci njub mooy góor góorlu ci njub góorgóorlu bu baax ci fonk suñu diine góorgóorlu bu baax ci fonk suñu diine góorgóorlu bu baax ci jëf lu baax te yàlla tax bu baax ci jëf lu baax te yàlla tax loolu loolu nan jéem bu baax a baax lan ko jéem bu baax a baax a baax jéem googu nu koy jéem. boo jéem googu nu koy jéem. te muy dëgg ci nun te muy dëgg ci nun nag. nu di ko jëfe nu di ko jëfee. suñu kem kàttan. suñu kem kàttan. loolu rek. loolu rek. lan mën a sant sëriñ bi. lan mën a sant sëriñ bi. am nañ tawféex ba noppi. am nañ tawféex ba nopp waaye nag. waaye nag. nekk ci lu nuy may ngërëmal sëriñ bi. nekk ci lu nuy may ngërëmul sëriñ bi. moo gën a dal xel moo gën a dal xel sëriñ bi sëriñ bi bëgg lu nu dara bëgg lu nu dara lu dul li mu bëgg rek lu dul li mu bëgg te moom bëggul dara lu dul yàlla gën te moo te mooy bëggul dara lu dul yàlla musta nekk ci dara lu nekk ci yàlla ak bi musta nekk ci dara lu dul nekk ci yàlla ak yonent bi lu mu ca dolli yërëm jaam ñi bëgg leen a bëgg leen a bëgg leen a gindi bëgg leen a wommat jëmale ci seen boroom lu mu ca dolli mooy yërëm jaam ñi bëgg leen a gindi bëgg leen a wommat jëmee ci seen borom. kon noonu rek la demee de. kon noonu la demee. nañu góorgóorlu bu baax góorgóorlu bu baax. ci li nu fi ci li nu fi indi. suñu borom moo nu bind moom nu. moo suñu borom moo nu bind moom nu. moo nu fi wàccee. moo nu fi wàccee. sant nu di ko jaamu. sant nu di ko jaamu. loolu mooy sunu warteef. mooy suñu loolu mooy sunu warteef. amul leneen lu leneen lu nu jikk. amul leneen lu nu jikk. loolu dong nga nu jikk. loolu dong nga jikk. kon góorgóorlu rek la moom la laaj. kon góorgóorlu rek moom la góorgóorlu baax a baax a baax a baax a baax a baax. ginnaaw nun sëriñ bi rekk mooy suñu lépp. ginnaaw nun sëriñ bi rek mooy sunu lépp. moo war a doon sunu dund. moo war a doon sunu dund. danaa di wax sëriñ bi moom. danaa di wax sëriñ bi moom. yoon wi alhamdulilah yoon wi lool fa tabarakallah. waaye ci sunu wàll. waaye ci sunu wàll. nun jaam ñi nun jaam ñi. sunu digganteeg sëriñ bi. sunu digganteeg sëriñ bi. bëgg gi. bëgg gi ak doyloo gi ak doyloo gi fu yoon wi àgg looloo ko fa àgg. fu waaye nag xamuñu sëriñ bi. waaye nag xamuñu sëriñ bi. dundu nu ko itam la dundu nu ko itam fii nu toll fii nu toll bu nu góor góorgóorloo bu nu góorgóorloo di ko gën a xam di ko gën a xam di ko gën a dund di ko gën a dund kaw rek la jëm kaw rek la ñuy jëm alhamdulilah ñin ko bokkal ñin ko bokkal muy sunu moroomi jaam muy sunu moroomi jaam ñun ñooñ sëriñ Tuubaa ñii ñooñ ñooy sëñ ñooñ sëñ Tuubaa ñii bu nu góorgóorloo bu nu góorgóorloo du nu kenn. du nu ñee te dañu ñee rek. te dañu ñee rek ci biir activité. biir activité tey jii ak ëllëg. tey jii ak ëllëg kon nan góorgóorlu lu baax. kon nan góorgóorlu bu baax rek loolu rek. loolu rek nag moom. koor gi moom alhamdulilah. alhamdulilah nan ko ta nan nan ci yeesu. waaw nan na nan ci yeesu lépp. nee na nañ yeesal suñ lépp fas yéene jëfe koor gi fas yéene jëfe koor gi fas yéene koo sellal fas yéene koo sellal suñ kem kattan suñ kem kattan nañ ci góorgóorlu bu baax a baax nañ ci góorgóorlu bu baax a baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf naa ngi jégalu ndax na ñu a a tàllal nañu ko tàllal